jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale bi yàlla na yàlla guddal sa fan way nga lu rëy way nga loo xamante ni nii duñu ko wéyal cuune duñu ko wéyal ku yaa yaafuus duñu ko wéyal koo xamante ni nii tekkul dara ci réew mi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent bi tey nag ñu ngi dalal ndaanaan woo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci réew sunu baay sunu xarit papa yu Ndour maa ngi lay nuyu maa ngi laay fay baa yaa ngi waaye waykat bi dafa juum encore ati nee keroog ba sa gaal ngay làngee sa gaal a raw man yoruma gaal bokkuma ci gaal yu rawante. mun nañu maa tuddee gaal nag waaye nit tamit loolu laay bañ ñu koy bind. dëgg la dëgg la way balaa nga koy way da ngay laajte. man Youssou ndooy kenn mënut a ne Youssou Ndoye dafa am gaal buy rawante. dëgg la mun nañu maa tuddee gaal nag waaye aw ma gaal guy rawante ndax ëllëg mën naa wax loolu ñu ne gaal ba këppu gaalu Youssou Ndoye la. jërëjëf waaw kon ngeen di way yéen géwél yi da ngeen di dem gëstu moo tax ba bëgg la lu neex nit ki rek mu tax ngeen way xamoo dara. jërëjëf sunu baay wax. jërëjëf sunu bàyyi wax na ko léegi léegi xale yi nan dem jàngi ndax l'histoire c'est une science kii ji la passé des hommes nan nañ jàngi papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. baa yaa ngi am jàmm alhamdulilah. papa actuellement am coow loo xamante ni nii wax dëgg yàlla mi ngi lëmbe Sénégal mm. wax dëgg yàlla kër kilifa di ku ci nekk yaa ngi ciy bay saw laaj ñu bind nag dik bind livre noo jàngatee livre bi. ñii bind livre yi di bind loo xam ne dara leeru leen. mooy ak loo xam ne yaa ngi koy bindal nit day fekk nga am lu la leer waa kër Baye Niass ngi nii génn li ñu wax dëgg la yaa ngi may dégg. yow rek dañuy dégg. njabootu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké barki démb porte parole bi wax na am na loo xam ne bind nañ ko amul. keroog maa ngi dégg njabootu buur siin ku ma génn tamit di wax. waaye gis nga kuy dof doflu dof doflu ba bind ci loo xam ne lébu yi. laajoo ma danaa la fekk fa nga nekk jël ay weñ dóor la ba nga ne zoy mbëkk la sëlëm la ndax man kenn du ma bindal loo xam ne askanu lebu ku leen bindal naka su dul noonu du ma la sax nekk ci télé yi ak rajo yi di wax fa nga fekk fa wala fekk fa laa lay fekk bu dee da ngay bind danaa la bind yow jërëjëf boo bindul tamit danaa la duma ba ngay bëgg a dee ak koo munti doon laa wax papa yaakaaru ni ñu ko bind ay doomu aadama la dañoo juum juum dayam gisuñu juum am na. juum bu amee day fekk laajte woo. Hmm. boo ñëwee ba aéroport fii nga taxaw ne fan mooy wakaam ñu tegtal la. ba wan la ko boo fa demee juumoo. waaye boo bëggee demal sa bopp te xamoo te fi nga jëm laajte woo. boo juumee yaa ko tey maa ngi wax ñi bind livre bi xam naa leen kenn ku nekk. lu dof dof loo ma bind ci lébu yi loo xam ne naka su dul noonu danañ dégg luñ mës a dégg yooyu ñuy bind ñu ko fenn histoire u Sénégal dafa am fu ñu koy teg dëgg la histoire u Sénégal dañ koy jàngat histoire u Sénégal dañ koy xool waaye papa ñu dégg am loo wax ci internet yi na tubaab yi yu xam ne dañuy dañuy tubaab tubaab lu parce que da leen di woo man woote naati woo naa leen wax naa leen averti naa leen Mm. nee naa leen seen yooyu ngeen nekk ci télé yi naan sosocin masocin je suis machin ceci ceci cela la machin la l'histoire la Sénégal la lale si c'est ça yooyu ngeen di def seen tubaab tubaab yooyu ku ko def jëmale ko ci man danaa la fekk fa nga nekk dama lay baxal oh, nga ni danaa la yóbbu ci géej gi nëq la nëq la boole lag sox soxoor yi xam nga sox soxoor laay laay li mel ne am ay pont maari de tàgg di ginnaaw gi laa koy joñ joñ la ko inaari lay neer gën a egg fuuf waaw léegi nag papa li ñuy tëjee waxtaan alxuraan bi yaakaaroon ne gars yi bu nu bàyyi woon libu yi ñii di bind bu nu bàyyi woon libu yi bind la yow mii. mënoo bind histoire Sénégal te bindoo libu yi. Mhm. man buñ may bind lañ may laaj waaye ku ma bindal loo xam ne ci réew mii bindal ma loo xam ne bind wax wax ma Youssou Ndoye de mais nga bind ci libu rek mooy bind nga ma. Mhm. te nga bind wàcc yoon. bu keroogee da nga gis loo xam ne mosoo ko gis waxuma la ay affaire mystique de. Ah. maay déplacé ba sa yaa xam yaag sa jabar a nekk yaa xam yaag sa doom a nekk danaa la nëq ah, dama lay yóbbu géej dóor la bëgg a bëgg a dee dugal la ci mbooyo bi jël xeeru jullukaay yi bomb la ko ut sox soxoor di la ko jam du ma ci bàyyi dara jërëjëf mais funtal nag bu ñu la bindoon yow wax dëgg yàlla bind ci Youssou Ndoye man mii comme ça man rek man man caam jugoon bëgg bind bi ma bàyyi ñëpp bind Youssou loo may bindal lu baax xanaa. ah ci sa mooy sa taarix li nga def ci réew mi. Ah, def ci réew mi li nga wax ci réew mi. fekk laaj ba boo ma laajul bind da am problème nga ni jékki-jékki nii rek bind. te laajoo ma man. yow loolu nag ko bëgg def nga ne. déedéet dama ne ko dama ko su ma ko xalaatoon laa wax. Youssou Youssou da nga koo xalaat dama ni nekkagul sama xel lu ma xalaatoon la rek ma ne naa ko wax ni ndax ñi lii lan la boobaa ma wala ni may def. Youssou lay def ni keroog ba gaal yàlla ngeen. waaw man man Youssou man lan laa fi wax lu jar a sumi. joow leen a joow leen joow leen keroog ba gaal yàlla ngeen. nga ne lan yow. nga ni ma nga ne bés boo jëlee bind lan. suma nga ne bés boo amee buntu bindoon ci man loo xam ne xamoo waaw man li ma wax ma la dëgg yàlla ba léegi mën naa ko mën naa la ko waaw dama ni bis bu mu amoon am sañ-sañu bind